maaleykum salaam. waaw soirée Ndefleng bi de wax dëgg yàlla Ndefleng daa nekk lu rëy ci nun daal parce que boo gisee Ndefleng sax mënuma wax sax olof ndax Ndefleng bi ndax séeréer dafa nekk loo xam ne dafa boole séeréer yi yépp Ndefleng mooy boolewu nekk benn donc Ndefleng ka ref ka andoona séeréer lay làkk yaam mi mu gar bo xew fu Ndefleng layaa olof non question yi dina am ku ko joxe ku ko jël mais mënu ma ñëw ci kiiwu Ndefleng ba pare di làkk olof waaw Ndefleng ka ref ka andoona yee ino séeréer ka i mbaro Ndefleng comme ne ta na donc ke koy ndefleng den xewdu mi koy no ndefleng fogum docteur Macoumba Diouf a refa kores a ref invité d'honneur fe xee ke koy a ref délégation ngum xa teɓum maagum xa tokoorum xaritum fopum a ndef meen keke ten ref délégation ne i njeg teen o maak koy yoona docteur parce que ko talena ye docteur Macoumba Diouf rek fop a inoox donc ɗayo maak o pour in i andaam me ken day ka yaam fa lay ne pangeel we yontuma fop o to o a jega teen o ñoxor kon kon magu docteur la asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu di leen gërëm si cër bi ngeen ñu jox euh, si bés bu nga xam ne bésu mbokk séeréer la bësu aada la nu ko maanaam Diouf wax sànq moo am nit moom la nga nàmp ngay wax dama koy fekk si li nga wax parce que euh, séeréer kaale kii noppagum te comme ñu ngi si Ndefleng si journée Ndefleng lañu nekk te moom loolu lay dund loolu la xam loolu lañ ko loolu lañ ko loolu lañ ko loolu la xam moom waaw nàmp du loolu xamul lu céréer yi donc euh, seen normal tamit mu ne leen de may leen ma ko. dama ñëw si soirée culturelle séeréer moom lay wax moo lay won na rek day dalay wax lii bés bi waaw bësu aada la bësu culture la di sant président Mbagnick Ndiaye si cër bi nga xam ne jox na ko euh, docteur Macoumba bi nga xam ne mooy sunu lépp mooy sunu rakk danañu wax ne sax rakk la waaye kilifa mooy sunu kilifa la tax na mooy sama kilifa parce que dafa am yëg-yëg si doomu aadama am yëg-yëg euh, si mboolem koo xam ne rek yaa ngi yëngu si mbirum aada si mbirum mbay si mbirum lépp moo tax ma ne la daal rakk la mais kilifa la donc di sant président Mbagnick njaay bi nga xam ne vraiment fu ñu waxee bésu séeréer yi rek mu may si docteur Macoumba du cër te docteur Macoumba aussi Ndefleng la bokk soxnam Ndefleng la bokk ñu ànd ak suñu rakk yi ànd ak suñuy jarbaat yi ànd ak am di jàmm yi donc euh, di leen wax rek rek ñun yegg si nañu ñu ngi leen di gërëm si invitation bi ñu def leen invité merci. Thank you. ana Diawlaye Seydou ñoo ngi nuyu ñëpp grands trains du Sénégal nekk séeréer loolu laa waroon njëkkee euh, nekkoon aussi maire Ndofane ndax noonu lañ ma dàkkantalee ci li nga xam ne moom lañ ñu tudde tey dañ fi ñëw ndax Ndefleng moo xewle Ndefleng nag ci séeréer mooy nekk benn ndax Ndefleng président Mbagnick Ndiaye jiite ko ñoom bañ ko sosee ba léegi dañuy fexe béy seen waar ci li nga xam ne mooy Sénégal pour que nit ñi ànd nekk benn mu gën a yombe nag ci ñi nga xam ne ay kal lañ muy ñun séeréer diggante euh, Abdoulaye Seydou Sow nga xam ne mooy ministre de l'urbanisme te directeur de cabinet am ko ak ki nga xam ne mooy Seydou Sané représenté joolaay di président Casa Sport ñëpp xam nañ ne diggante yooyu tooñante kalante ak jàmm moo ci nekk moo tax tey Ndefleng tànn def benn parrain séeréer muy man mi ak ni ma wax sànq ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy Eh, yeneen parrains yi ñu jaarale ko nag ci culture ndax ñu ngi dund bés bu set di wax di tooñante waaye fii bu ñu fi dajee ku nekk indi li nga xam ne moom la am ci culture dafa am lu bees li muy indi ndax ku dégg culture mën nga nekk beneen xeet ñëw fekkee kon lii dina dajale xeetu Sénégal yëpp pour que jàmm am ndax réew mi fi mu toll képp koo xam ne mën nga def luy indi jàmm danga koy def donc ci loolu dañ ciy félicité Ndefleng mi nga xam ne dafa tànn bés bi def ko muy bésu jàmm bésu juboo ci xeet di bésu jàmm ci biir Sénégal loolu tax ñu bàyyi suñ lépp ñun ñëpp ñëw fekkee si bés bi. waaw euh, man euh, Seydou Sané euh, donc jóge Ziguinchor maay président Casa Sport di kontaan vraiment bés bi parce que comme ni ma ko waxee sànq. Euh, Joola séeréer lu rëy la lu rëy séeréer rek moom moo mun a ne noppil ma nopp séeréer moom moo mun a ne bàyyil ma bàyyi donc bu amee lu mel nii ñun dañu war a teew wane ni lii amoon dëmb ba tey dëgg la séeréer ak Joola ñoo bokk te dara mun koo soxla moo tax ñu def tout pour fekkee ko di ñaan nag vraiment def leen lu mu yàgg a def ba taxaw ak Gaindé Jambañ muy association bu nga xam ne Joola séeréer la. te ñëpp xam ni joué na bu important dans la stabilité de la Casamance ci jàmmu Casamance bëgg nañ tamit parce que Covid bi moo leen téye mais bi ak yéen jàmboon doon dox bu baax a baax jàmm xamoon nañ ko Casamance te moo tax may ñaan tey ñoom Samba Ndiaye ñi nekk fii ñi nga xam ñu ne ñuy si jàppale jàppale bu baax ba baax association séeréer te nekk séeréer waroon nañ defaat encore lu mel noonu ak ñoom Mbagnick ñu ñëwaat Casamance fekk seen frères yi. seen doomu baay seen doomu ndey ñu ne leen nekkaat leen ni ngi leen xamoon mooy jàmm ñu nekk si jàmm te xam naa ne ñoom bu ko defee rek jàmm dellu waat bu baax a baax. oui moom laa lay wax conseil bu gën mooy tey ñun ñun bu ñu amoon séeréer ñu ñëw rek ñu ne ñun noppi leen noppi jeex boobu mooy secret parce que amoon na jamono bu gënoon metti lii sax. mais ñoom ñoo wàcc gox ak gox village village dem wax joolaay wax ak seen mbokk yi wax ak Casamance ba ñëpp noppi te loolu bu ñu ko defaatee rek mu noppi c'est vrai amoon na am na tension c'est normal mais actuellement sant la baax a baax mu ngi wàcc ñëpp ñu ngi xam ni te jàmm rek moo mën a def dëkk lu dul jàmm rek du dëkk waaw. waaw Abass Ndiaye directeur de cabinet ministre Abdoulaye Seydou Sow donc. Euh, jërëjëf moom moo waroon nekk aussi parrain alpulaar yi yàlla def euh, mu am gàllankoor ñëwul waaye nag moo fi gisee le directeur général Samba Ndiaye fekk fii le doyen euh, Sané président te ñoom ñëpp ay xaritam lañ aussi euh, mel nañ ne moom taxaw na fi niñ ko waxee nag li li Olof njaay di wax Sénégal benn la kenn mënu ko xar ñaar li moo ko fi ndeer tey c'est-à-dire que nation la boo xam ne dañ ko yàgg defar ba li am am donc lu mel ni su amee day gën a suuxat diggante bi nga xam moo am entre sénégalais et je pense que yu mel nii war nañ ko di ko gën a euh, euh, siiwal pour que xale yi xam ko parce que lii réglé na ay problèmes yu bëri comme ni ko président Sané waxee rek na ay problème Casamance rek na ay problème aussi si biir kër parce que bu ñu indee cousinage à plaisanterie yi nga xam ne yembul rek si joolaa ak tukuleur wax nañ ko léegi am na njóobeen ak euh, njaayeen am na si si sant yi loolu yëpp mooy Sénégal kon nag lii sunu moomeel la c'est-à-dire que tey boo doon wër monde bi mën nañ nax lii sunu empreinte la sunu moomeel la nit ki nag boo amee sa moomeel muy culture boo xam ne ñu bëri bëgg nañ ko te amuñ ko da ko war a téye dëgëral ko rafetal ko te loolu la waa Ndefleng def donc ministre bi si profito en tant que alpulaar di gërëm joolaay di gërëm séeréer yi waaye aussi di ñaanal Ndefleng li nga xam ne moom la taxawal yàlla def muy gën a law si ginnaaw ba Sénégal yëpp gis seen bopp comme ni mu ko waxee bu ñuy organiser joolaayu aussi ñëpp ñëw fekkee loolu je pense que lii daal tënk na lépp en tout cas si turu ministre bi ñu ngi gërëm association bi di ñaan yàlla lu mel nii mu gën fi euh, dëgër. dama la laaj ndax neex na wala neexul torop lii mooy cosaan ak culture séeréer séeréer bi nekk cousin yi joolaa bi joolaa bi nekk cousin yi tukulóor bi tukulóor bi nekk cousin yi séeréer bi tey ñu def ko euh, guddi gi de relance depuis quatre ans Ndefleng daaw doon tëgg léegi euh, ñu ngi tëggaat reprendre nañ parce que Covid bi moo tax tey sax boo gisee ñu def ko cousinage à plaisanterie joolaa séeréer tukulóor mooy li xew ci réew mi. réew mi nañ delloo si suñu xel parce que dara jaru ko ñun ñëpp ay mbokk lañ ay ay ay am di jàmm lañ tant que amuñu sécurité tant que amuñu paix jàmm du am moo tax Ndefleng ne nañ ko def sous soo sceau cousinage à plaisanterie joola séeréer xalpulaar Ndefleng bi mooy bi Senghor di dem dafa om magi séeréer yi ne leen bu ngeen deful ndànk dans cent cinquante ans kenn dootul wax séeréer fii na ngeen góorgóorlu jàpp cosaan jàpp aada parce que bu njëkk bu sengoo doon am gan bu important ah, gis nga les grilles du palais fa la troupe séeréer yi nekkoon gan bi bu ñëwee buy dugg ci biir pale la dernière image culturelle bu mu doon am mooy image sé ah, fo image culture séeréer buy génne di ñibbi dajewaat ak ñooñu image boobu lay am Senghor ne nag bu ñu mosul yooyu dina jeex pas yi les vieux yal na leen yëre yërëm la pour la plupart oo ñu réunion ne lii la ñu Senghor wax te ñun dañoo bëgg balaañ fiy jóge ngeen organiser wu ci la ñu organiser wu tuddee suñu bopp union des associations culturelles séeréer Alaaji Sarr journaliste bu bu rajo bi ne nañ leen ko def ndef Ndefleng mooy boole ñëpp ba léegi boo gisee boo gisee tey soirée bi gis nga fi noonu gis nga fi ndut gis nga fi saafen mais gis nga fi yeneen xeeti siin yi ah donc loolu mooy Ndefleng mooy ñu nekk benn nekk benn boobu nag Ndefleng am na ay séeréer paloor séeréer siin siin séeréer ndut séeréer noon séeréer saafen am na aussi ay séeréer euh, yi nga xam ne yi Jurbel la ñu nekk ñu tuddee leen ool am na séeréer yoo xam ne yi bi Kaolack la ñu dëkk zone yi Kaolack bi ñu tuddee leen feefey mais am na it ay ñoomin ka boo gisee Ndefleng aussi am na Ziguinchor am na Sédhiou am na Kolda am na Tamba ci biir Terre-Neuve yi nga xam ne Senghor dafa jëloon ah, mbokki séeréeram yóbbu leen ay Koupentoum ak euh, les villages ah, yi nekk à Tambacounda ndef la nga fa nga ñëw Kaffrine ndef la nga fa Kaolack ndef la nga fa Gossas Kaolack fa Fatick ndefle la nga fa Thiès ndefle nga fa ah, Diourbel ndef la nga fa Louga ndefle la nga fa donc ndef la nga ngi fépp Sénégal donc bu jëlee décision di organiser soirée di def une soirée de relance nga ñëw fii ah, joolaa bi wax tukulóor bi wax je crois que lii nekk na lu am importance donc lii la ñaan pour Sénégal nekk benn xeex yeeg xuloo yeeg ŋaayoo yeeg yooyu yëpp ñu bàyyi ko parce que bu éclaté rek ci ñun ñëpp la éclaté quoi hmm? que donc li li xew ci yeneen réew yi waruñoo tax ba mu xew fii di gërëm nag suñu parent yi Ablaye du Sow nga xam ne mooy Haalpulaar bi Seydou Sané nga xam ne mooy mooy joolaa bi ñoo ñëpp gis nga ne Samba Ndiaye séeréer bi dalale ñuy remercier nag président de la République remercier monsieur le premier ministre Amadou remercier le ministre de la culture nga xam ne bi euh, yónnee na fi forte délégation les ministres Alioune Sarr le ministre Serigne Gueye Diop mais aussi docteur Macoumba Diouf Amakodou Diouf ak Bour Sine bi nga xam ne bi envoyé na fi une très délégation mais remercier aussi public bi ak yéen ñi nga xam ne yéen a jóge Kaolack ak Dakar ñëw couvrir manifestation